Fofu, 45 millions de tonnes de phosphate il faut que nous ñu nga xamné ne bi dafa le phosphate waaw gis ngeen ICS bi phosphate la mu jaral leen ñuy raser ay dëkk phosphate dafa jaral waa ICS ñu raser ay dëkk délocaliser leen feneen phosphate dafa jaral wa ICS ñuy fekk dëkk boo xam ne dañ leen nous fii moo nekkoon almer yi ñu jël almer yi ñu pelleté ko gas benn commune sotti fa li yépp ci yi je sais pas si vous comprenez dem leen laajte ñaata dëkk la ñu délocaliser ci Tivaouane ndax phosphate kon xam ngeen ne phosphate am na et on parle de 45 millions de tonnes de phosphate bu nekk fële ca Matam mais

le fait que phosphate ni mu amé solo mu am ay kat yu tok 10 mois sans payer, c'est un scandale état du Sénégal nañu wax lan mo fa am na dem seet li nek fofu ndaxte qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 mois de salaire lolu moy laaj bi nga xam mom la ñuy laaj président Macky Sall ak ministre des mines lan mo nekk ci ginnaaw 10 mois d'arriérés de salaire ñun wa FRAPP lolu lañuy décrier ci site winu phosphate Matam de la même manière bu amé ay liggéeykat kat 75 toog 10 mois sans salaire jangor la ci kat yi voyez, c'est le symptôme de quelque chose d'un mal dans la gestion de cette société mais d'un mal dans la gestion de ces phosphates c'est sûr qu'il y a un mal dans la gestion de ce phosphate L'Union européenne, bañ perdons perte 10 perte perte l'estec. perte 10 nous suñu ay mbokk citoyens Donc, ñun 10 mois sans salaire nous perte 10 perte que nous ñun askanu nous yëpp ñu ñàkk ñu découvrir dans quelque temps que ndeketewoo xëy na patron yi dañ pas santé permis patati patata kalali kalala suñu ay liggéeykat suñu ay concitoyens liggéeykat ñu ñàkk suñu trésor public ñàkk loolu mooy wax ci